monsieur Sarr Saliou Sarr ñu ngi lay nuyu di la dalal ci réew mi. maa ngi lay fay. Saliou Sarr la bokk ci taxaw Sénégal euh, coordonné tamit plénipotentiaire opposition bi ci dialogue politique bi euh, tey ñu waxtaanee fichier bi euh, gannaaw nag jàngat gi nga xam ne ay expert def nañ ko ñoom joxe nañu seen xalaat wala sax li ñu jot a gis ci fichier bi yéen opposition mu mel ni da ngeen d'accordul benn yoon ci liggéey googule lu ko waral. waaw euh, dëgg la d'accord ñu si ndax xam nga ñun duñu bokkoon si ñu waxoon ni bala ñuy demaat élection lu ñu càmbar euh, fichier euh, fichier bi parce que doonu njortu woon ni mhm. am na ay jafe-jafe looloo tax tubaab bi wax terme de référence mhm. ñu tënkoon ab këyit yoo xam ne ni juróom-ñaar ba fukk question laaj mhm. ba santaane santaane moo gën a jub ñu sante ko auditeurs yi pour ñu dem maral ñu loolu si loolu donc ñu laaju ñu leen woon ndax fichier bi li tubaab da wax ndax fichier bi baax na mhm. ndax xam nga techniquement loolu opposition si tirer leçon dans le passé xam nga li tubaab di wax logiciel mhm. logiciel moom buñ ko nangoo ba di ko jaay ça veut dire que bu amee agrément rek baax na mhm. waaye loolu li ñuy wax li tuba wolof di wax ordinateur mhm. loo ko machine loo ko jox rek moom lay génne loolu tax ñu wax ko ni ko loolu ñu koy jox càmbaral ñu loolu ndax jaar na yoon mais bi mu ko càmbaree gis na ni ni ah li nga xam ne nii moom la ñuy jox machine bi pour muy defar fichier électoral mhm. am na lu lu si un million cinq cent personnes yoo xam ne nii këyit yi nga xam na ni moom la ñu defaree maanaam euh, moom la ñu yóbbu. Mhm. ay këyitu parparloo la. muy extrait de naissance. Mhm. wala certificat de résidence. lu tax ñu wax loolu parce que dañu jàppoon ay nit. Mhm. te rapportu Sénat bu 2017 wax na ko ay nit yoo xam ne nii dañu wax ni ñi ngi nekk par ci fichier électoral lu Dagana. te fekk na richard lu nu dëkk. xam nga loolu mën nga fa sax nekk mais dañuy wax ni article L trente six mhm. bu code électoral bi dafa ni bala ngay nekk ci liste électorale u commune ndax liste électorale yu commune rek la nekk liste bala nga ciy nekk ci commune da nga fay juddoo boo fa juddoowulee da fa war a am waajur ndey wala baay boo xam ne nii ma nga fay yeewoo mhm. ñett wala yow nga yeewoo fa wala nga fay liggéey mais bi ñu seetee xale yooyu nga xam ne nii ñoom la ñu fekkoon ci liste électorale Dagana mhm. te nu nekk Richard Toll ñoom remplir ñu këy loolu Sénat bi nga xam ne ni moo nekk département bi wane ne ah lii fraude la mhm. saisir mu pour mu pour mu bi mënu ko àtte waaw kon nag ñun bu ñu gisee loolu loolu moo taxoon te ñu seetlu ko ci dëkk yu baree baree bari bari mhm. mu ñu wax ne ko est-ce que mën nga ñu xoolal li nga xam ne ni moom la ñuy jëfandikoo moom la ñuy indi pour mën a nekk ci liste électorale ñoom ñu wone ci un million cinq cent xam nga loolu lim bu takku la. Mhm. Mhm. wane nan ko mu dëggal li nga xam ne nii moom la opposition doon yor. ñu laaj ko lu mel na affaire ñu fichier électoral bi comparé ñu ko ak fichier yeneen yeneen at yi. Mhm. mais bi mu ko wanee mu wane ni. moom li chiffre bi mu joxe dafa wuteeg chiffre bi Sénat joxe dafa wuteeg chiffre bi audit bi passé deux mille dix huit joxe. ci même mbir. ci même mbir mi mu nekk jafe-jafe même parrainage bi nga xam ne nii moom lañ ko laajoon ni ko kaay nga tàmbaral ma ko élection présidentielle. Hmm. kuréel gi nga xam ne nii moo ko yore woon muy conseil constitutionnel bi mu leen ni bi ko auditeurs yi bindee lettre ni ko pour ñëw seet ci loolu dafa bañ. non seulement recevoir euh, maanaam recevoir u leen mais lettre bi ñu bindoon sax tontuwuñ ko ñu santoon leen ni leen audit bi kat ñu ngeen yam ndakaaru hmm. di toog rek ministère de l'intérieur duñu bëggoon nga dem ngeen dem ci ay maanaam ci gox goxaat yi bu ngeen demee ci gox goxaat yi ngeen xool liste électorale yi fa nekk yooyu ñu signé ndax méngoo naag fichier bi ngeen fichier général bi nga xam ne ni moom ngeen yore. Mhm. ñoom ñu dem si àll di gox goxaat yi mu nekk fanweeri commune ak ñaar mais bi ñu demee au lieu ñu dem renko boo fu kay boo fa dee dem ñan nga war dajeel mooy parti politique yi mais ñoom bi ñu demee préfet yi ak sous préfet yi rek la ñu dajeel est ce que préfet sous préfet dana la wax li nga xam ne ni moom la opposition di seet. ah ñooy autorité territoriale. donc tool yooyu la wax ci rapport bi wur wane ni bare na ay mbir yu dëng ba ñoom ci mbir yu dëng yooyu lu tolloog fanweer lu ëpp fanweeri yoon maanaam ay non fanweeri jubbanti mhm. lu ëpp fanweeri jubbanti ñu proposé nañ ko waaye yow fichier kay bu leeree soxlawul ay ay ay yoon pour jubbanti mën naa dégg ñaar wala ñetti jubbanti waaye bu fekkee ëpp na fanweer ça veut dire que mbir a nga fa loolu na nga tax opposition li nekk ci biir rapport bi méngooluwul ak li nga xam ne ni moom la mujj wax mooy fichier bi baax na ndax ñun lan ko pour wax ko seet mu seet ko li nga xam ne nii moom la ñu war dugal ci fichier bi pour machine bi génne ko loolu ñu si war dugal bu fekkee bon na li muy génne mënul baax. tey am na ñu bokk benno nee nañu lu tax ngeen taxaw fii ne euh, lii ak lii ak lii c'est parce que da ngeen bëggul dem ay élection moo tax ngeen jàpp ci rek ci fichier bi. waaw mais ñoom loolu xam na ni loolu koy xam na du dëgg. ndax mu si biir dialogue bi. Hmm. si fan yee paase. lu wax ni euh, ñoom du ñu yóbbu woon benn këyit assemblée. Hmm. ba yóbbul élection locale yi février deux mille vingt deux ñun opposition ñu bañ ñu tegu leen ko fenn ndax élection yi mën nañ ko def même bu ko dàqee mars deux mille mën nañ ko def décembre deux mille vingt et mm-hmm. wax boobu noonu na la ne ay la yëwan dëgg société civile bi ne ay la yëwan dëgg la mm-hmm. président euh, comité de suivi bi nga xam ne ni mooy Majib Ndiaye mu ne ay la yëwan dëgg ñoom kot ñoom kot ñu bañ opposition boycotté ni mbam na sax dialogue bi bi ñu demee assemblée ñu wàññi loolu ñu doon nekk février au plus tard janvier deux mille vingt et un deux mille vingt deux kon amee kenn koo xam ne nii bañ na bañ def élection mu ñoom la kon tey daal lu tax ñun ah. lu tax ñu ragal uh-huh. élection yi ñu yóbbu ko deux mille vingt deux boo ko fa yóbbu mm-hmm. yaa ngi indeeti ay pexe par élection législative parce que 22 hmm. en dehors des législatives war na tax aussi organiser élection des collectivités territoriales donc tey jii soxna si hmm. bu amee kenn koo xam ne nii dafa ragal dem élection mooy euh, donc majorité surtout que nag dama ko fàttee wax si wolof bi hmm. sànq bi may enfin dama ko fàttee lim mooy que auditeurs yi génne nañu nee nañu lu ëpp ñeenti téeméeri junniy bindu nañu am carte électeur depuis février deux mille dix neuf maanaam au lendemain de l' élection présidentielle loolu nag nan la mën nekkee ndax pour nga bindu si liste électorale yi dafay fekk commission de révision am te depuis ñaari at commission révision amul donc ñoom boobu ñu toogoon di dàq yépp di dàq di dàq. Mm-hmm. ndeke ñoom ñi ngi jaar si su di wutal yenn seen ay yenn nit yi nga xam ne ni wóor na ñoom la ñuy voteel ay carte électeur donc kon tey ñoom ay njublang lañu ay nit yi nga xam ne nii seen wax seen wax hmm. du jar mukk nga dóor ci sa doom. kon tey daal jarul euh, wax ji maanaam waxi fichier bi jarul opposition xalaat boycotté ay élection non ñun xam nga ñun dañu waxoon audité noonu hmm. xam nga ñun mosuñu wax ni noonu audité ndax xam nga indépendant ay jaamur yàlla ñooy ñëw wax mais jaamur yàlla yooyu mën nañu ay nit lañu mën na noo wax juum mais bu nu waxee juum du tere nii ñun comme waxoon na nañu audité nañu te génne nañu résultat audit bi résultat bi ñun ñu d'accord seeg ñu ñàkk si d'accord audit bi ñu waxoon am na leneen dañuy jàll si leneen mais ñun audit bi ñu waxoon nii nii nii nii ñu def ko amal nañu importance ndax jox nañu ay information yu bare bare bare yoo xam ne ni ñi ngi ko doon maanaam laaj mhm. te léegi am nañu tontu bi d'accord tey ëllëgu dialogue politique bi tey gannaaw li ñu gis ni xëccoo bëri na ci opposition ak pouvoir ëllëgu dialogue politique waaw dialogue xam nga dialogue moom réew normalement mhm. ñun duñu bokk si ñi nga xam ne ni dañu wax ni dañ ko war a donc dafa maanaam waxtaan dafa war moom moo war loo xam ne nii dafa war a am tous les temps diggante ñi nga xam ne ni ñoo yore réew mhm. ak ñeneen ñi nga xam ne nii ñi ngi nekk ñu ne ñu ne wax ñu nekk ci kujje gi mhm. ndax suñu constitution sax moo ko bind moom moo reconnaître ni am na ñuy gouverner am na ñu nekk ci kujje gi mhm. mais ñu nekk ci kujje gi ay sénégalais lañu yuy wax déet fi nga bëgg a yóbbu Sénégal baaxul. te mhm. eh, noonu nga ko bëgg a defee nangam loolu yëpp nag ay interpellation la mais dañu war a wax tout le temps dañu war a waxtaan tey jii man damay rêvé. Mhm. Sénégal boo xam ne nii président la république bu demee toog bi ñu fal juróom-benn weer yu nekk. Mhm. dana woo kujje gi pour waxanteeg ñoom si problème mu réew mi. maanaam donc diisoo moo war a moo war a sax si Sénégal. donc ñun looloo tax ñu dem wuy ji mais xam ni ñi ni seqal ñi. buñ la waxee tey lii euh, suba wax la leneen. kon daal yéen da ngeen di liggéey nii mais amu leen benn yoon confiance ci euh, nguur gi. mais amuñu ci ñoom confiance wax na leen ko mais nag euh, li ci raw li kanam rawul bët. Hmm. malgré ñàkk confiance bi ñëw nañu wax ñoom ba am lu toll ci lu ëpp ñaar fukki ponk yoo xam ne ni juboo nañ ci. Hmm. te président dafa waxoon ni lu ngeen waxtaan bu juboo ci dama koy dama koy doxal. Hmm. du ci changer virgule. Ah, ah ñu ngi xoolaat ndax euh, soppeeku na wala soppeeku ba toujours rek ni mu dënge woon la dëng mhm. sànq yaa ngi koy wax euh, ci kàllaame nasaraan di wax fichier euh, bi ñuy gérer depuis Malaisie loo bëggoon a wax foofu. waaw loolu lu mu si bëgg wax mooy loolu garaaw la nga xam nga bu nit a demee am ay jaamuru yàlla yoo xam ne Sénégal. ñu mhm. ngi constaté ni ñoom weer ñu nekk Sénégal bëgg liggéey ci fichier bi ñu ne leen waa il faut ngeen jokkoo ak waa Malaisie kon tey jii li tubaab di wax base de données ay données personnelles. Mhm. xam nga données personnelles maanaam yow li nga xam ne nii euh, ban an nga juddu sa turu nday sa turu baay euh, fan nga dëkk loolu dafa si réew ah mhm. dafa am important dañ koy dañ koy jox kuréel bu mucc ayib pour ñu téye ko. ñu protéger ko. Mhm. ah. mais tey jii bitim réew lañ ko yore mais nee nañu du lu bees de lu yàgg. mais loolu même bu dul problème bi mooy Macky dafa ñëwoon ni man damay ñëw damay ñëw pour pour soppi. dafa bari. d'accord damay jiital pencoo ñu àndandoo wax pour intérêt Sénégal. mais tey jii ruslu man dafa ruslu tey ñuy wax ni yàgg na fi yàgg na fi loolu dafa ruslu Sénégal war na dépasser tey lu toll lu ëpp ci juróom benn million wu nit seen ay données personnelles ma nga Malaisie c'est Kuala loolu moom danger ëppul loolu souveraineté pays fii la war a nekk bañuñu benn réew ñëw di la jàppale ci benn xaar Mm-hmm. mais bu la ko jàppalee ba noppi. li mm-hmm. nga xam ne nii fii nga ko war a toog ay nit yi nga xam ne nii mën nañu jël xarala bi pour continuer liggéey bi. mais doo gis mukk ay données personnelles France wala États-Unis mu nekk ci beneen réew. Mm-hmm. d'accord merci beaucoup monsieur Sarr Saliou Sarr. jërëjëf man yow laay gërëm donc di la remercier ci information.